kon amul dara lu ñu gën a fonk ci bis bi kon nag ñu ñaan rek ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ne moo ko santaane moo te njabootam gi fi nekk ñëpp daa ko def ba agsi ci ak Cheikh Mouhamadou taxaan mii tey ñu ñaan mu yàgg koo taxawe te ànd ko mboolem njabootu Serigne Touba képp ak mboolem taalib bis bi nag loolu ma ci wax rek ci tënk mooy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 am nañ yaqin ci ne suñu borom danañu ko defal lu ëpp loolu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh